si mim réew nee nañu faw ñu leen di fàttali ne euh, Sénégal réewum droit la te am droit manifester warul mën a tax nga gàllankoor droit wu keneen ka nga xam ne moo war a dox ay yitteem daañu ci dikk ci bi la jotaay xibaar Ndeye Khady Thiam sa lingeer nag xam ngeen ne kon foofee dawalkati moto Jakarta euh, ñoom ñoo gàllankoor dem baax dikk ba si diirug ñetti waxtu la ko waral nag du lenn lu dul ñaar si ñoom ñenn ci ay dawalkatu moto yu nga xam ne nii nañ dañ teg ñaar seen ñoon yu nga xam ne dañ leen tudd ci mbiram viol tàggat yaram dinañ ci ànd ak Pape Mante Mbuub yéen a kaay xëy dëxëñ ñu ànd Seex Mantulaay ci bundooy faram fàcce gi ñu ànd Seex Simon Faye Mamadou Fofana Asma yaa ngeen jëf dees naka door ñaari weer yu nga xam ne du ko tëdd maanaam sursis ak ñaari téeméeri million yu nga xam ne ni daanaka mooy ndàmpaay la euh, loolee nag euh, moom la ñu sàkk ci Ousmane Sonko moom la ñu teg ni ay daan ci kawam juge ba verdict boobee démb la ko waddal ci procès bi dox ci digganteem ak Mame bay ña euh, mu ma ni nag moom président bu PASTEF dañu jàpp ne kon moom moo coupable la mu waxoon ne kon daanaka am nay preuve daanaka di fay preuve Euh, jëm ci jëwriñ bi ñu denk wàllum tourisme waaye nag verdict bi euh, daanaka euh, tax na bañ a taxukaa doon mbégte ci ministère public bi nga xam ne ne nañu nag dañuy interjeté appel Euh, mu mel ne kon waxtu yu ñu dëgmal daañ ci am lu leer waaye it jàppale ne kon procès boobee parquet dafa sàkkoon ñaari at yu nga xam ne nii benn at ba dañu koy tëdd jëm ci wàllum diffamation wax lu dul dëgg ñaari at yu nga xam ne nii benn at bi euh, da koy tëdd jëm ci ay faux en écriture publique waaye ñetti weer yu nga xam ne nii da koy tëdd jëm ci ay saaga kàddu yu ñaaw ya nga xam ne euh, teg nañu ko ci ndodd Mame Mbaye Niang jëm ci it mam daa dare bu nga xam ne dañu ko teg ci ndodd Ousmane Sonko waaye laata ñu ciy am lu leer nag jàppale ne kon kii di Mame Mbaye Niang ay avocat tey ji daan jàkkaar jàkkaarloog taskatu xibaar yi tey ji si ngoon dañu joxoon te dig daje Simon ñu jëm ba tey ci wàllum projet boobee nga xam ne askan wi daanaka ni ñu ko dundee jéggi na dayo renvoyé nañ ko si ñetti yoon euh, waaye nag démb lañ ko mujjee àtte si diir bu gàtt ñu dikkaat ci audience boobu ànd si Younoussa Baldé ma ñu fa teewaloon. ñaari weer yu mu dul tëdd maanaam deux mois de prison avec sursis ngir Ousmane Sonko looli moo tukkee ci procès Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko Ousmane Sonko dina ndàmpaay tamit Mame Mbaye ci lu toll ci ñaari téeméeri million de francs CFA ñaari délit la ñuy toppee leader bu Pastef di diffamation wax lu dul dëgg ak injure maanaam yëkkati kàddu yu ñaaw jëmale ko ci nit délit bu soxal foo bi nag looli tribunal def ko génnee ci ndoddu Ousmane Sonko ci ndorteel audience bi nag métti na dañoo laajoon suspension de séance ci diiru trente minutes juge bi nag bañal leen ko coow li bari lool ci salle bi en matière pénale bu fekkee prévenu bi teewul ci audience bi ñu koy layool amuñu droit jël kaddu gi ci noonee ñuy défendre Ousmane Sonko génn ci salle bi avocat yu Mame Mbaye Niang yi ñoom dañoo def seeni plaidoiries yi démonter pièce par pièce tuuma yu Ousmane Sonko yëkkati teg ci kaw Mame Mbaye Niang ginnaaw ñoom ñooñee procureur de la République def plaidoiries juge bi mu daan Ousmane Sonko ñaari atu kaso te benn bi sax daf koy tëdd waaye tribunal bi topp ko ci loolu ci mujjanteel ba ñaari weer prison ak sursis lañuy ñu daan Ousmane Sonko waaye te amande bu toll ci ñaari téeméeri million ci suñu xaalis. Idrissa Balde Maître bokk ci avocat yu euh, Ousmane Sonko yëkkati na kàddoom gannaaw ba verdict ba rotee nee na nag euh, dëgg mujj na am ndam ci kaw yi fen ñu teewlu ay kàddoom. benn benn firnde bu wane ni Mame Ndiaye jël na ñaar dërëm ci Prodac kon tey yoon daan na ko daan nañ ko ñaari weeri sursis ak ñaar téeméeri million yu war a fay Mame Ndiaye muy ndam lu rëy. verdict bi dafa gaaw ndax ah kom kenn ki ñëwul ndey mbili gi ñëwul ki sos ñëwul ki wax lu dul dëgg ñëwul ki nga xam jomb naa wax dëgg ñëwul mbir mi day yomb. ndax moom li waxal ni ñu amul ndax mënu koo weddi koo mënu koo weddi nag ah lu ci am mooy daaj ko rek rëq ndigam rek. gannaaw maître El Hadj Diouf beneen avocat bu Ousmane Sonko wax na jëm ci euh, procès bi na mu doxee xam nga ne ñoom ci boppam dañoo mujjee gedde génn saal ba ndax amuñu fa woon parole euh, ci wàllum droit pénal nag jàppale ne kon euh, sa client bu ñëwul amoo droit représenter ko ndax danga ko war a assister képp nag loolee ay leeral yu tukkee ci maître Bamba au contraire gis nañ ne tey jii amul woon leen leen leen lu ko mënoon tere mu atte dossier bi ba si sax bu ko jaralee mu topp avocat mu def ko loolu nag nekk lu diis nekk lu metti lu ñuy nakarlu ndax euh, tey jii bu ñu amee ay nawle yoo xam ne dañoo jóge ci yeneen bitim réew te ñoom réew yooyu ñu nekk ñun ñooy seen référence ñun la ñuy roy bu ñu gisee tey fii ci Sénégal ñu doxalee nii ñun dañ ci am gàcc kon atte na président Ousmane Sonko nee na teg nañ ko daan ñaari weer yoo xam ne du ko tëdd. ndax da ngeen appel. dinañ si waxtaan nag ñi ñu war a waxtaan li ñu si war a def incha allah dinañ ko def. en français waaw ah, muy procès bu nga xam ne daanaka nag euh, jeexagul ndax bu ñu waxee ne kon appel mën naa amaat askan wi ba tey des di tiit ba tey. ba léegi parce que procès bi euh, jeexul c'est vrai que démb c'était une étape essentielle parce que euh, dañ ne woon démb moom i fallait que ñu àtte ko te finalement looloo am parce que renvoyé nañ ko ñetti yoon bañ koy renvoyé ñetteel bi yoon sax juge ba ci boppam depuis décidé woon ne yëpp fi audience spéciale lay doon donc mujjee na am démb verdict rot na verdict bi nag ak jàngat yu bëri yoo xam ne mën nañ ko cee def ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoo indi Ousmane sonk ci kanamu tribunal bi maanaam ñi nga xam ne ñoo porté plainte euh, Mambay ñan notamment euh, après peut-être dinañu wax moom ban décision la jël avocat défense Ousmane Sonko également dinañu wax peut-être ban décision lañ jël mais déjà ñu ngi dégg ne parquet bi ci boppam ñoom dinañu def appel parce que boo yaa ngi koy fàttali sànq parquet bi li mu laajoon ak li juge bi dogal sore woon nañu parquet bi ñaari at la waxoon doo un en ferme plus amende ci ñaari délit au moins beneen délit bi injure euh, mooy euh, euh, trois mois donc sore na ak ñaari weer yi nga xam ne moo ànd ak sursis te juge bi dogal ko waaye nag li ñu ci mën a jàngat leneen mooy yëfi jeexagut jeexagut parce que après il faut ñu xam appel bi également fan lay mujjee moom la ñu xëyee tey jii mais leneen li ñu mën a wax mooy également taxawaay bi nga xam ne justice bi am na ko parce que boo xoolee ñaar ñi sekk mbir mi ñoom ñëpp ay way politique lañu. Mhm. kii féete ci nguur gi kii féete ci opposition bi donc ku ci nekk également yaa ngi seet nan ngay jekkoo sa moroom kii di seet naka lay mën a fexe ba rëcc ci lii nga xam ne peut-être dugal na ci boppam wala dugal nañ ko ci parce que moom moo wax Ousmane Sonko moo wax tuumaal kee jàpp ne dañ ko tooñ moom tam kon yóbbu mbir mi ci yoon na yoon àtte mais ci biir loolu gis nañu leneen loo xam ne moo am bi verdict bi rotee juge bi nga xam ne moom moo jël. verdict bi moom moo dogal ne lii la ñuy euh, teg ci kaw ndodd Ousmane Sonko juge boobu peut-être mën naa wax ne dernière minute lañ ko désigné. Hmm. maanaam au pied levé. parce que juge Pape Mohamed Diop mi nga xam ne moo yoroon dossier bi ba fii jiite woon audience yi passé ba fii moom finalement defa ne seen dossier ngook baal leen ma waaye lii moom duma ko àtte jéggal leen ma ko raison ya mu wax nag moom ak ki nga xam ne mooy kilifaam kilifaam nangul ko ko désigné waat beneen juge ne kon ñëwal àggali liggéey bi juge boobu démb peut-être moo siggiloo attekat yi parce que dossier yi bu amee dañuy faral di gis politique ci biir politique parce que ñaar ñi ko seeg ay way politique lañu politique parce que kenn ki nga xam ne moom lañ ciy topp amaana amoon na nu mu doon demee verdict bi gën a diis ci moom. Mm. ba mu nekk gàllankoor ci moom du mën a bokk ci élection présidentielle bii di ñëw. Mm-hmm. looloo waraloon coow li rey coow li bëri mais finalement la justice comme ñi ko ñu bëri jàngatee tey ji suba si a finalement tranché la poire en deux mais mhm. nag tranché boobu peut-être am na ñoo xam ne duñ ci gis seen bopp mën nañu def appel bu boobaa également dañ koy toppaat mais li ñuy ñaan rek mooy buñ nareetee demaat ci leneen ci beneen appel bu mu nekkaat ci contexte tension beneen boo xam ne moom la ñuy dund parce que bii passé quand même faut le ak yeneen yi ci xew yëpp au moins ñetti bakkan rot na ci te loolu ma mbay ëpp na mu ngook ndax verdict bi verdict politique la wala rek yoon dafa def liggéeyam tëddee ñaaxaanaay daal di joxe verdict bi nga xam ne daanaka mën a sañu ko féetale ci wàllum yoon lu mu ci manti doon fii ci réewum Sénégal tàmm nañu di gis ne kon verdict bu xasaa wàcc ñam arrangé wul di wax ne kon réew mi amul justice bu tëddee ñaaxaanaay taxaw seetlu bu fàtt ma Fatoumata Diop justice sénégalaise bi dañu koy critiquer ci fànn wu nekk justice boo xamante ne depuis boobu ba tey nag mu ngay réclamer lu jëm ci wàllum indépendance am waaye nag tey ji ginnaaw verdict procès diffamation bi doxoon ci diggante Ousmane sonk ak Mame Mbaye Niang ñaari weer sursis ak amende ñaari téeméeri million yoo xamante ne dommage ak intérêt la ndax décision la boo xamante ne nag mën nañu wax ne sunu justice bi am na indépendance am ndax itam mën nañoo jàpp ne tey jii bu ñu xoolee contexte politique bi tension bi am réew mi décision bu sage la droit wax nañ ko ci wàllu wu ni mel ñenn ñi ne waaw droit jib na ginnaaw nag bu ñu xoolee peine bi ñu teg ci wàllu wu ni mel ak ñàkkum teewaayu avocat yu Ousmane Sonko yi ña ca des naka ñu ngay critiquer ñee ñooy di critiquer nag saa su ne bu fekkee décision yu jukkee ci justice bi ci wàllu politique ak lu ni leen arrangé du ñu nag waaye bu fekkee arrangé wu si la ñuy jukk di xarab li leen di justice bi ndax tey jii waruñu def benn taxaw seetlu ci wàllu wu ni mel ndax saa su ne nag décision yu jukkee ci justice rek décision la yoo xamante ne dafay jugee ci pouvoir bi ngir ci ñoom waaye li wér te wër moom moo di am na ñoo xamante ne nag daal dinañu leen a jugé libéré leen te ñëpp ci mbirub ay manifestation ak yu nu mel waaye tey jii ban taxawaay la ñu war a am bu ñu xoolee jamono jii ne suñu institution judiciaire yi ñu ngi koy xarab jaajëf Fatoumata Diop Mamadou na ñu waxtaanee kon avocat espagnol bi di Juan Paulo euh, López Branco xam ngeen ne dafa bokk dafa bokkoon ci avocat yi Ousmane Sonko yi ci pool d' avocat am ngir nag ñu layal ko waaye nag moom na mu dikkee ci aéroport bi noonu la ñu ko delluwaatee refoulé ko laata muy wala mu na mu wàccee si aéroport euh, Blaise Diagne noonu la delluwaat foofe euh, ci ab bataaxal nag jàppale ne kon ministre bi ñu denk biir réew mi andi na ci ay leeral nee na dëgg neex yàlla maître Juan Paulo López Branco moomee ñoom ci boppam ñoo nangu nanguwul mu wàcc fii ci réewum Sénégal ndax nag Antoine Félix Diome nee na laata mu fiy dikk am na ay kàddu yu nga xam ne daf ko posté ci réseaux sociaux yi yekk lu mel ni xamee njiitu réew bu euh, Sénégal dem sax ba koy tuddee ne kon ab tyran la maanaam jimboor yi lu ko neex euh, def ci réew mi ba noppi di woote ak fitna ci réew mu nga xam ne moom euh, dëkku fi nee nañ loolee nag duñu ko nangu ci am réew mu nga xam ne ni dañu koy bàkkee réewum teraanga naam nag dëgg la waaye nag teraanga googee faw mu ànd ak respect jëm ci suñuy yi Mamadou Fofana mel ni kon commentaire bu nekk dégg nañ ko ci mbiru avocat boobu. waaw euh, ku ci nekk ak euh, gis-gisam ku ci nekk ak euh, xalaatam. monsieur le ministre de l'intérieur la mu la mu taxawee taxawaay la boo xam te ne nii pour wane ne Sénégal réew la boo xam te ne nii également dañ ñu war a jox cër ci au niveau international ci surtout li nga xam te ne nii moom mooy suñuy institution parce que quoi qu'on dise aussi suñu institution yi dañu am tey muy Macky Sall di keneen koo xam ne di dafiy ñëw keneen ku war a nekk président des générations et des générations ce qui est sûr mooy que ces institutions la vont rester et demeurer ni ko tubaab di waxee les hommes ñoom ñooy jàll donc loolu am na solo aussi également vis-à-vis ak surtout ñi nga xam te ne nii sa waay ci bitim réew nañu nekk mais yenn cër yi aussi ñu di ko jox nit ñi parce que mhm. tey jii nii d'accord mën nga layal nit ki amul benn problème ñëwal nga wax ci li nga xam ne moom mooy dossier bi mais quant bëgg mel ni ne c'est un euh, euh, règlement de compte entre yow français bi ak un président sénégalais du loolu ñëwal ci dossier bi nga wax ci lan nga ci gis bu fekkee ne ne dafa am vice de procédure bu fekkee ne ne jàpp nga ne nu ñu àttee du ñoon ak yooyu mën nga ci joxe sa xalaat mais quand man du ma lu français buy yëkkati kàddu di saaga président africain wala président sénégalais parce que aussi il faut ñuy respectante parce que loolu tam dafa am solo mënuñu ne fii wax ay côté à côté France gage am beneen français bu taxaw fële ne le bëgg a layal nit ki mais balaa ngay ñëw nga yàq musiba nit ki mel ni ne ko ne ñun ku ñu jiite ki nekkul koo xam ne tekkiwul dara il faut qu'on se oui il faut qu'on se respecte aussi le président de la république c'est une institution entre nous peut-être ku ci nekk am nga sa xalaat noo koy doxalee mais yow munoo nekk avocat war a jóge bitim réew war a ñëw am koy layal bu la neexee ñëwal ba yegg si boo yeggsee ba teg say bagage bu la neexee ci li nga xam te ne nii moo jëm ci procès bi nañ ko doxalee ak yooyu am nga droit wax ci donc am nga droit ci beneen parti bi sax nga wax ci loo ciy xalaat mais pas quand même ñëwagoo bëgg a jël suñu président mel ni ne ñun ku ñuy jiite tekkiwul dara aussi. c'est bon. Hmm. Euh, Branco il faut peut-être ñu comprendre moom activiste la d'abord. Mm -hmm. activiste avocat la d'accord jàng na droit nangam nangam mais activiste la xëy na ci position boobu la nekkee woon mais position boobu mën nañ ko comprendre mais duñ ko ko jéggal. kon dañuy applaudir man personnellement décision bu ministère de l'intérieur waa bi mu nee cëpp fii ñu toxoñaat ko dugalaat ko ci beneen avion ne ko dellul également peut-être li ñu mën a wax ci moom euh, actuellement en France peut-être ak situation boo fa ne moom il fait partie des avocats qui défendent les leaders du mouvement des gilets jaunes donc mooy surtout activiste euh, bi nga xam ne moom la doon mais il est né en Espagne en 89 France mi ngi am nationalité française en 2010 donc ça veut dire que mi ngi ci ñaari réew yi donc loolu mu mu nekkee euh, tey jii am na tam péete ci wàllu politique xëy na politique boobu moo waral mu war a mën a am rapprochement wala xëy na moom ak Ousmane Sonko war a mën a am connexion yi bañu ñu avocat bu jógee bitim réew ñëw parce que bëri na quand même avocat yu bëri yoo xam ne dañuy jóge bitim réew ñëw di di di plaider ay dossier fii pour ay ay clients mm. tout comme ay avocat wu Sénégal ñu ngi dem ci yeneen réew di fa plaider ay ay ay ay ay ay ay dossier mais lépp nag nañ ko teg ci yoon ak worma mm-hmm. mënoo nekk bitim réew di sànni kilifa gi nga xam ne moo fi ne ay mbolde ba pare nga bëgg boo ñëwee réew mi tam bàyyi la ci donc décision ministère de l'intérieur pour man c'est une décision opportune et qu'il faut applaudir peut-être day jox avertissement également ñeneen ñi nga xam ne ñi nga ca biti di fi bëgg ñëw bu ñu naree ñëw également nañu xam ne ñoom ci seen bopp ils sont surveillés Mhm. parce que un activiste quand même il ne passe pas inaperçu voilà donc euh, loolu moom euh, dañ koy rafetlu ñëpp seet lañu kenn démb Dakar Ndiaye daanaka dara doxul euh, borom magasin yi dañoo tëj borom boutique yi dañoo tëj dem biir dikk bi de gàllankoor lañ sa nemmeeku ndax daanaka dara dawul ba si Jakarta borom cak-cak yi sax dañ leen aaye la ko waral nag du leneen du procès bi nga xam ne daanaka matul ñaari waxtu ñu ànd a Cheikh Abdoul Aziz Sow Dabakh ma doxantu démb ci mbeddi Dakar yi ngook Abdoul Aziz Sow Dabakh démb doxantu na ci mbeddi Ndakaar yi la mu seetlu moo di daanaka dara dara doxu fi njënd meex njaay mi lépp nag xuusi gala góose boutique yi dañoo tëj magasin yi dañoo tëj euh, livreur cak-cak yi sax daanaka dañ leen wax ne doo leen daw waroon deux roues yi transport bi waxi noppi yenn bus yi dawuñu banque yi tamit ñu daal di koy tëj la waral moo di doon ragal fitna am ci procès bu maam bay ñaaw Ousmane Sonko Abdoul saw da baax ya niru confinement ni ko niñ ko doon dundee ci jamonoy Covid 19 bi ak li mu fi def waaye procès bu dox diggante Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko moo waral lu ni mel amay njeexital ci dundinu askan wi lépp sëngéem ci capital bi tekkaaral lañu nemmeeku ci yenn mbedd yi dem beeg dikk gi oyof lool. waaye nag tension bi fës ba tey koo xool wala foo xool màndarga boobee ngay gis. bus Dakar dem dikki dawuñu ndax société bi dafa jël ay matukaayam bañ ko ko tojalaatal ay otoom yenn ci entreprise yi itam niki noonu banque yeeg bërëb yu ni mel tëj njënd meeg njaay mi gàllu góose yenn ci ay kanting dañu tëj ràpp loolu mën a ndërmee loo gi ak am am bile ndax toog bisub lumb banque say baaraam dem geeg dikk bi ñu doon nemmeeku ci VDN bi ci élèves yi gisuñu ko li ko waral moo di feet bi ñu leen teel a may bi mu mel ni kon lépp ne tekk taxaw askan wi toog seen kër ba tey ñu gis ne kon am nañuy faral di loru si manifestation sa bu amee ndax taskatu xibaar yi technicien des médias yi ñoom ci boppam yëkkati nañ seen kàddu di ñaaw lu jaarale ko ci CAP ñoom nee na ñu nag wax fa dëgg neex yàlla manifestation yi mujj lu mu ñaar ñu nga xam ne jël nañ si ay gaañu gaañu benn caméra wu man bu nga xam ne daf see euh, blessé waaye it am na de presse bu nga xam ne takk der yi dañoo daal ci kawam nee nañu nag loolee boppam la ñu bëgg mu dàkk waa coordination des associations de presse ci ab bataaxal la ñu joxoñ baaraam lu ni mel ñu ànd seex jàngatu kàlla Diane Baldé ñaawtee fii di di bëri jëmee ci ñi nga xam mooy taskati xibaar yi bawoo ci yenn ci ay alkaat yi nga xamante ni dafa mel ni dañ leen a singale li jëm ci manifester yi nga xamante moom la couvrir ci terrain bi ci seetlu bëri na jamono ji ay journalistes nga xam ne leen di gaañ ñenn sax dem di leen bund xatal ci li nga xam mooy seen liggéey kap di kuréel bi nga xam moo ëmb association yu boot ñii di taskatu xibaar yi nag gis na ni démb ay gendarme opération chirurgicale gannaaw damm-damm noonee it reporter bu AFP di agence française bu presse nag moom it ñu daat koy bundu xataal ko dem sax ba daat koy agressé ci biir fourgonnette bu police donte sax yëkkati na carte nationale am ngir wane leen taskatu xibaar la moom moom lay jële ji ay gaañu gaañu yu métti ñaawteefu yu ni men baawoo ci ay alkaati nag ñu jàppee ko nii doxalin yu wormaalul benn yoon yi nga xam ne mooy taskatu xibaar yi ci seen liggéey te a def seen liggéey ci ci communiqué yëngali boobee bawoo ñenn ci alkaati yi jëmee ci journaliste yi ci manifesté yi mu xamle it ni bindoon na sax ab bataaxal ngir sàkku ab audience jëmee ko ci ministre de l'intérieur waaye boobu ba léegi France daal di xëddeem dellu di feddali kolereem ak njàppandalam ñi nga xam ne mooy taskati xibaar yi amee gaañu gaañu ci yile manifesté teewul nag muy sàkku ci hiérarchie force de défense yi nag ñu tàggataat seeni ndaw ngir rek ñu bàyyi xel ci journaliste yi ndax nag seen liggéey dong la ñuy def mu fexe ba informer yi nga xam ne ni mooy askan bi ci li xew ci terrain bi alors Mamadou Fofana nag gënul kon nag ñuy amal ay euh, séminaire de renforcement de capacité jagleel ko reporter yi nga xam ne ñoo nekk sur le terrain bu ay manifestation di faral di am euh, ndax ñuy xam fan la ñu war a taxawee nañ leen war a identifier seen diggante force de l'ordre yi ndax souvent ñoom ñoo ciy lalu si jamono ji nga xam ne ñu si yëpp ay borom chaîne YouTube la qui ne sont mm. pas forcément des journalistes oui euh, c'est vrai que xaj na loolu mën na nekk ci côté mm-hmm. lu mën a nangu xam ñi nga xam ne ñoo nekk ci nu ñuy tuddee théâtre d'opération yi mhm. surtout ñuy mën a xam fan nañu war a taxawee ak nan nañuy mën a def mais ci gis-gis tamit des fois dina xaw a jafe parce que mhm. yëf yi day jaxasoo tellement yow bu fekkee ne yow yaay reporter nga nekk ci gannaaw policier xeer fekk la fa mhm. nooy def da daw doo fa toog li policier bi am ci ay outils wala li mu am ci li nga xam te ni mun na ko dimbali mu mën a moytandiku loolu yow amoo ko donc ay mbir la yoo xam ne souvent day am ci li nga xam te ne nii moom mooy am bu jàmmaar la amu amee donc li ci gën je crois mooy ñuy gën a def attention gën a bàyyi xel ak moytandiku parce que tamit moytu tamit taxul nga rëcc ci mbir yu nu mel gis nga koo xam te ne kii mu ngi taxaw doon xaar ci wetu policier yi mbir am na xëccoonte am na doon nañ grenade lacrymogène boo nekkee asthmatique ci grenade lacrymogène bu ñu dóor mu ñëwaat ci côté policier yi mais ñoom peut-être mun nañ ko dëkku mais yow bu fekkee asthmatique nga da ngay daw donc loolu yëpp ay ay mbir la yoo xam te ne nii mënul mënul mënul mënuñu ko moytandiku xam nga terrain nag moo nekk loo xam ne les risques du métier donc c'est les risques également du métier les aléas du métier ni ñu koy waxee mais lu ci mënti am comme li nga wax séminaire de formation xaj na ne dina gën a am solo pour nit ñi aussi ñi bàyyi xel manifestant bàyyi xel na ne kii de li ko fi indi nekkul pour xaj na ne pour jàmmaarloog yow ak yooyu mais li ko gën a yokk jóg moom mooy tas xibaar. bi te rek mooy li nga xam ne moom. ñuy bañ yenn saa yi manipulation bi euh, <laughs> hmm. ko waxee. parce que hmm. dama def kii bi constat lu ci hmm. war moo war a xam ni ñuy traité information bi xamu ko. te ñu bëri seen téléphone portable la ñuy la ñuy liggéey ak dispositif yu léger yoo xam ne mën na leen may ñu def direct à l'instant donc euh, dafay gën a yomb ci ñoom mais euh, li nga wax peut-être ci formation euh, jeune reporter yi entre guillemets loolu euh, je pense que daraan am daraan am maa ngi fàttaliku ay jamono chaque fois bu ñu jegee nii élection dañuy fexe dajale journalistes soit mu nekk à Dakar wala ci yenn gox yi fu ci nekk ak la nga xam ne moo moo moo fa ne mm-hmm. dajale leen ñu waxtaan boole leen waxtaan ak takk der yi boole leen waxtaan également ak euh, l'autorité ba nga xam ne moom moo fa ne ci administration territoriale parce que li ñuy nemmeeku mooy ci terrain bi takk der itam dañoo war a comprendre ne ñoom ñi ñu war a protéger journalistes yi ci la ñu bokk amuñu problème ak journalistes yi ak manifestants yi la ñu amal problème donc journalistes yi itam comprendre ne seen liggéey nekk ci seen liggéey warut a mën a tax ba ñu gêner force de l'ordre yi mhm. parce que souvent loolu moom mooy indi problème yu ndaw yi nga xam ne moom la ñu nemmeeku da jege ab takk der nga bëgg bootu ci ginnaawam peut-être même am la bonne intention nga ne xaaral peut fii laay gën a amee sécurité mais moom day jàpp ne fa nga nekk foofu sax danger la ci yow parce que foofa na wax na ko sànq bu dee ay xeer ñooy jóge en face di ñëw ci kaw takk der yi xeer yooyu amaana yow mi bootu ci ginnaaw takk der yi mën na laa laal donc genre situation yooyu mooy tax ba yenn incompréhension yi di am mais incompréhension quand même warut mën a tax ba taska ba ba ba ab takk der di fitnaal ab journaliste rawatina koo xam ne sax dañ laa njëkk a fitnaal ba pare dugal la ci biir oto bi continuer foofu di la mbugal di la mbugal ci ay saaga di la mbugal également ci ay dóor loole dafa war a jeex dafa war a dakk et je pense la coordination des associations de presse a bien fait de réagir waat takk der yi ne ñun ay partenaires lañu sur le terrain bu dee mën naa ko waxee noonu mm-hmm. mais di fàttaliwaat journal yi également que ne def sa liggéey warut a mën a tax nga gêner les force de l'ordre ñoom ñoo war a assurer sa sécurité mais yow d'abord d'abord yow sa sécurité sa sécurité bopp la bul exposer sa bopp bul dem fi ñuy sànnee xeer wala lacrymogène bul jege trop parce que ñu bëri scoop la ñuy wut diw dóor nañ ko daanu na nañu daw filmer ko diw dóor nañ ko gaañu na nañu daw filmer ko et cetera et yooyu tam dañ ko war a mën a moytu surtout que li nga ko wax li euh, nga ko waxee léegi maintenant c'est des plateformes digitales yuy gars yi di liggéeyee wala bokk di liggéey ci réseaux sociaux yi mhm. classique je pense que de manière générale xam nañu te ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax a baax ñu euh, jàll ci euh, bataaxal bu nga xam ne euh, jëwriñ bi ñu denk wàllum bon gouvernance promotion des droits humains te ñu taf ko ci ministère de la justice moom mu ngay fàttali ni kon sunu takk der yi daanaka seen mission moo di aar askan wi ak seen moomeel Mamadou Saliou Sow lay wuyoo mu ngay fàttali nag yenn droit de l'hommiste yi nee nañu nag seen yenn kàddu yi ñu faral di yëkkati dafay jafe ñu comprendre leen ndax nag am droit manifester bi nga xam ne dañ koy sàkku ci réew mi warul mën a tax nag yow it gàllankoor nit ki nga xam ne dafa am ay activité war koo mën a doxite yoonam nekku ca ñu ànd seen ndey xati ci am taal ci bat Le gouvernement du Sénégal précise que les forces de défense et de sécurité assurent leur mission régalienne de protection des populations qui leur garantit le droit de se déplacer librement. Donc, les manifestations doivent aussi se tenir dans des conditions qui permettent ñu jégalu ca Linguère la ñuy wutali ni ma leen ko waxee ci ndorteel bi la jotaay xibaar dawalkatu moto taxi Jakarta yi ci boppam ñoo gàllankoor dem baax dikk ba ci diiru ñetti waxtu la ko waral moo di nee nañu ñaar si seen i ñooñ dañ leen tudd ci mbiram viol loolu moo leen metti Mass Ndiaye reportage. si diggante police ak dawalkatu jakarta yu nekk si diwaanu Linguère ñaar lañu ñu arrêté si ñoom gannaaw ba ñu leen tegee ab baaraamu tuuma maanaam di leen jiiñ ab viol ab xale bu jigéen te lool ay mbokkam la ñu booleeg waaye takk der yi ngir ñu wàññi ko ba mu jàkkaarloog police bi maanaam si biir l'enquête bi mu fesal ne ñaar si ñoom jot neen ko tëdde police bi gannaaw ba mu meree ba futt teg leen loxo lii nag moo tax dawalkatu jakarta yooyu wàcc si mbedd mi baare bi si diiram ñaari waxtu naam sax policiers lacrymogène ab lim bu takku mais faale leen ay lacrymogène yu tar moo tax ñenn si jullit yi amoon ay jafe-jafe ngir mën a lagg ba seen jumaa ji def seen i naafile jakarta yi xas ne du ñu tegg seen loxo lu dul ñu bàyyi ñooñu leen ñu jàpp si ay anam yu doy waa lu ñu mel nekk ñaareelu yoon ñu koy nemmeeku si diwaanu Linguère moo tax ñu ñuy jiin ay autorité nekk si département bu Linguère war see at laata mbir mi di jéggi dayo mu ngoog euh, dañ leen tudd ci wàllu <laughs> viol Simon mais ñoom daal nee nañ nag euh, duñ dem ci yoon xanaate xanaa si mbedd mi lañ ko bëgg rek. mbay moom kenn xamul nuñ ko mën a tuddee. Ah, damay bañ bi rek mais sinon ma ne kon reewaande la. Ah, parce que tout simplement euh, c'est vrai que say nit mën nañ leen jàpp. xëy na ma dong la parce que. yii nii souvent nañu jiital présomption d'innocence. mën nañu manifester seen mer neneen ay dawalkatu Jakarta ni ñoom. amaana lañ ci tuumaal mais waruta mën a tax ba ñu wàcc di yàq mbedd mi nii bu dee lii la moom vraiment ñoom nañu jéggalu waa Linguère parce que ci jamonoy xëy na heure dog la ak heure naafi la perturbé nañu ñu bëri yàqal nañu ñu bëri également ñu ñu ñu ñu mën a doxi seen soxla mm-hmm. nañu jàpp ne justice bu taxawee xëy na mbir am na am na ñu ci tuumaal ba teg leen loxo mais ànd leen ak tey ba ngeen xam mbir mi naka lay mujjee parce que àtteeguñu ci li ma comprendre atteeguñu kon nag nañu tey xam ne du wàcc ci mbedd mi di taal mooy saafara si parce que lii amaana tam dañ ko gis ci ñeneen loo tax ñu sañ ko def te yii nag cas yii mbay dafa war a dakk ci biir réew mi. dafa war a dakk nag. yoon am na ci réew mi nag bu fekkee lépp euh, euh, dossier yëpp dañ ko bëgg réeré ci mbedd bi da doy waar <laughs> yàlla baax na si moo jaajëf. jërëjëf rédaction baa ngi lay xaar. ba midi incha allah li moom Mamadou Fofana foofu ñu waxtaanee ko tës. <laughs> waaw 89 point 7 li kaawu tës la tës lañ ko doon andi <laughs> ñu dala Pape Mante mu ki tàggat sagara ngi xëy. Cheikh Dougar Pape Matam bu maa ngi laa nuyu. maa ngi fay le grand maire du département. baa lépp jàmm. alhamdulilah sama waa